من الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير فيسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte lool ci ñëw ci dëkk bu sell bi waaye di am mbégte bu rëy lool ci teew ci jataay bi di jiital ci suñuy nuyoo ak suñuy ziyaar xalifa dëkk bi waaye di jagleel nuyoo sëriñ Abdou Mbàkke mi nga xam ni suñu jokk ci dëkk bi ci moom la jaar di nuyu mbokk yi nga xamante ni yépp fekk nañu leen fi nga xamante ni ñoom ak ñun ñoom lañ doon jokkool ba egsi fii yal na yàlla fay ñépp yal na yàlla def jataay bi mu nekk ci jataay yi mu gërëm yal na bokk ci jataay yi nga xamante ni malaaka yërmande yërmande dinañ fi wàcc dinañ fi sotti dal yal nañ bokk ci jataay yi nga xamante ne yàlla dina ko waxtaane ci penc ci asamaan yi comme niñ ko annoncé tomb bi nga xamante ni moom lañ ñu wax ñu waxtaanee ko ni mu ko waxee léegi mooy àdduna bii ñuy dund te fi mu ne nii mu nekk ci ay jafe-jafe suñ xoolee tomb bi niñ ko tënkee dafa am ñetti ponk yoo xamante ni ñoo ko yenu bi ci njëkk mooy crise mondiale mooy jafe-jafe yi nga xamante ni àdduna bi mi ngi ci fi mu toll nii te ñépp gis nañu ni lépp lu waral tàkk am dajaloo ku ko sànni ci rekk mu tàkk fi mu ne nii ñépp xam nañ ni am na luy yoot àdduna bi te suñ ko gàttanduwul su ñëwee du baax ci nit ñi fi mu ne nii li gën a mag lu ñuy waxtaane te muy ci wàllu jafe-jafe yi ñuy dund mooy xeex bi nga xamante ni ma ngay am ca Europe ci diggante Russie ak Ukraine nga xam ni sax am na ñu commencé di wax ni ñetteelu guerre mondiale commencé na ñetteelu guerre mondiale commencé na waaye loolu sax jafe-jafe te dinañ ko gis ci kanam ñoom ñooy xeex ñu ne mondial parce que ñoom tubaab yi ñoom ñooy xeex kon fi mu toll nii tembe mën nañoo wax ni guerre occidentale walla guerre européenne ñoom biir tubaab yi waaye ba léegi daa am loo xam ne ñoom raxasoo guñu ci te bokk na ci jafe-jafe yi tax bokk na ci tax ñu am jafe-jafe ak lislaam raxasoo guñu ci mooy jàpp gi ñu jàpp ni àdduna bi ñoom la lu leen laal rek duñ ñi ñoom la laal mais dañ naan àdduna bi la laal parce que seen gëm-gëm boobu ba léegi jógee guñ ci parce que li maandu woon ñu wax ko mooy ñu wax guerre européenne fi mu ne nii bu commencé wala guerre wala ger occidentale loolu nag beesul ndax suñu xool histoire yépp même ger mondiale bu njëkk beeg bu ñaareel bi du ñoom la woon ñoomu neen la woon ñoom ñoo bëggoon a séddoo ku nekk bëgg am cër bu ëpp sa moroom jubóowuñu ñu reyante waaye suñu yoon nekk mais comme ñoom la woon te ñoom ñooy àdduna ñu ne acca guerre mondiale droit de bi ñuy dégg ni ci jafe-jafe yooyu la bokk ndax déclaration universelle bu mujj 1948 la 1948 la ñu bind ne nit ñépp ku judd rekk gor nga te ñépp a ki xees ak ki ñuul ak ki zone ak ñëpp a yam loolu mooy article bu njëkk ci déclaration universelle bu droit de l'homme bu 1948 pourtant ba ñuy wax loolu ñoom ñu ngi ñuy not ñoom bi ñuy wax l'homme naan àq ak yelleefu doomu aadama bi ñu koy wax di ko bind boobu am na doomu aadama yoo xam ne ñu ngi leen doon not am na doomu aadama yoo xam ne jàppuñu ne woon ay doomu aadama lañ dañoo jàppoon ne ay jaam lañu war a doon kon bi ñuy wax déclaration universelle bi ñuy wax àq ak yelleefu doomu aadama ban doomu aadama lañ doon wax tubaab bi lañ doon wax parce que boobu ñun bokkuñu ci woon ndax boobu ñu ngi ñu not wax ñu ne du ñu jaam leneen moo ñu doon àtte lu ñu doon tuddee la le leen di l'indigénat ñun yeneen àq ak yeneen yelleef lañ ñu tëralaloon ñu bokkut ak yii mais jàpp gi ñu jàpp ni ñoom ñooy nit moo taxoon ñu ne comme àq yi nit ku weex lañ ko defal te mooy nit moo tax ñu tuddee ko droit de droit de l'homme occidental moyenage âge problème boobu tamit lañ ci am mooy ñoom ba ñu tollee ci seen jamonoy lëndëm seen jamonoy réer seen jamonoy rabe waaye fi ne àdduna bi yépp lañ tuddee ni ñépp dund loolu te waxtu woowu ñoom ñuy tuddee moyenage soo ko déggee rek mooy période bi nga xamante ne tubaab bi ñu ngi woon ci seenu lëndëm jamono boobu moo tolloog ak jamono bi gën a rëy ci civilisation bu lislaam li gën a rëy ci li lislaam def ci période boobu nga xamante ne ñoom ñi ngi nelaw la ñi ngi nelaw la kon li maandu mooy ñu wax le moyen âge occidental parce que ñoom ñoo nekkoon ci lëndëm am na ñoo xam ne ci jamono boobu nekkuñu woon ci lëndëm moo tax biñ jógee ci seen lëndëm googu yeewu daal di nag gàddu seen yet ak seen jaasi dem ci ñeneen ñi ne leen da ngeen doon nelaw dañ leen di yeesi te fekk ñooñu yeewu nañ bu yàgg ñoo leen njëkk a kon li ma bëggoon wax rek mooy ci crise bi ñuy dund boobu benn la ci bi ci des mooy gis ngeen Chine fan yii yëpp mu ngi wane dooleem ngir ñu njott ni dafa bëgg a songu Taïwan États-Unis nee na ko boo ko songee boo ko laalee laal ma te xam nañ ni laalante su amee foofu fitna gu rëy la kenn du ci mucc ñu ngi wax ni Iran mu ngi waaj a àgg ci mën a am bombe atomique am bombe nucléaire te États-Unis nee na doo ko fi amee te duma ko seetaan kon mu nekk ay taal yoo xamante ni ñu ngi jug fu ne ay taal yoo xamante ni fu ne rek ma ngi fay jib ay daay yoo xamante ni mi ngi waaj a tàkk gis ngeen ni tamit fi ne ñi ngi wax ni lu tax dollar nekk xaalis bi nga xamante ni moom la ñuy jëndantee ak di jaayantee ci àdduna lu tax am nañu ko man loolu dafa war a jeex ndax li ko indi woon mooy ku amoon doole rek ñëw fexe ba ni man sama sama sama xaalis ci la ñuy jaayanteeg di ko jëndante léegi yeneen réew ñu ngi naan lu tax duñu am ñun tamit suñu xaalis bu nga xamante ni bu dul dollar di ko jaayanteeg di ko jëndante fi ne nii am na ay ay mboolooy réew yuy dajaloo muy ay bloc ay mboolooy réew yoo xam ñi ngi dajaloo mu mu mu nekkaat ay lawoon di won ni lawoon moo nekkoon di won ni mooy benn doole boo xam ne moo fi nekkoon léegi doole boobu yoroon kilifteef gi ne ñépp ay surga ngeen léegi surga yi ñoo nekk di bañ kon loolu mooy benn ponk bi nga xamante ni li ñuy waxtaane ci la tënk muy crise mondiale boobu ñaareelu ponk bi mooy li ñuy wax tëralin teg àdduna bi ci doxalin bu bees muy nouvelle ordre mondial àdduna bi ñu jël ko teg ko ci yoon wu bees ndaxte fi mu nañ ñi xam nañ ni yoon wii mu tegu su continuer rek ci pax lañuy dugg loolu ñu bari ñu ngi koy yuuxu depuis bu yàgg su fekkoonte ni àdduna bi nit la dañ naan awraam uññeeku na su fekkoonte ni kuy dox ciw yoon la dañu naan xamatul fum jëm bu fekkonte ni ab ab caq bu ñu takk la dañ dañ naan caq bi dagg na per tasaaroon kon foog ñu defaraat foog ñu xoolaat fu ñu jëm baatu nag jël àdduna bi tegaat ko ci doxalin bu bees beesul wax jooju beesul ñu ngi ko gën a jëfandikoo ginnaaw bi guerre froide jeexee mais tàmbali na depuis bi guerre deuxième guerre mondiale jeexe nga xam te àdduna bi dafa togguwaat na mu tëdde woon soppeeku mooy ñi gañe muy États-Unis ak ñi doon de les alliés ak ñi àndoon ak moom doole ji ñu yore ko tëgg doxalin bu nga xamante ne nii ñoom nañ gise woon àdduna ak nañ bëggoon doxale waye bat bobu ci ben téré la njëkk genn buñ bind ci 1940 bo xamanteni dañ ko tuddé won nouvel ordre mondial waye nak bat bi ñu ko jëfëndiko dëgg bi nga xamanteni union soviétique daanu na ndax biñu ñu ci guerre mondiale ñu gis liñu daj ci coono ci fitna ci ay millions nit yu dee waaye teewul comme logique bi ñu nekk mooy jaayante doole waaye ñemeetuñu songaat beneen xeex parce que l'Occident, gis première guerre mondiale moom lañ tudde la grande guerre xare bu mag bi moom lañ tudde première guerre mondiale ndax jàppoon nañ ni nit xeex bu tol noonu yàq-yàq gu tol noonu millions yu tol noonu dee du amati muy 14 18. 18 ñaata at après 39 ñu songaat beneen xeex boo xamante ni gën naa ñaaw gën naa rëy gën naa am ay lor ci première guerre mondiale biñ ci jógee ñaari doole yi fa nekkoon daal di tàmbali beneen xeex ñu tuddee ko xeex bu sedd parce que du xeex boo xam ne dañu jël ngànnaay di jàkkaarloo wala di jël ay avion di bombardante muy guerre froide mooy xeex bi mooy ku nekk lu mën ci yàqal moroomam da koy def waaye nag ci suuf la koy def loolu ñaari doole seqoon ko muy amerique États-Unis ak Union soviétique ñu nekk ci xeex boobu di nekk ci xeex boobu ñu dem ba 1989 benn doole bi daanu muy Union soviétique bi mu daanoo benn doole moo des muy États-Unis ci lañ daat ne nag léegi war nañoo jël àdduna bi tegaat ko ci beneen yoon bu bees yoon bu nga xamante ni day dàq lépp lu nga xamante ni fitna la yoon boo xamante ni day tas démocratie ci àdduna yoon boo xamante ni nit ñi dañuy am jàmm yoon bu nga xamante ni ni nit ñi dañuy am bonheur loolu George Bush George Bush Baye comme États-Unis ñaari George Bush yëpp euh, jiite nañ ko mais ki nga xamante ni mooy wayjur bu góor bi George Bush bu njëkk bi 89 90 la def discours boobu ci congrès américain jëfandikoo baat boobu ni nañ tëggaat àdduna tëralaat àdduna doxalaat àdduna doxalin bu bees wax ni nii ma wax sànq noonu la war a doxe ci dañ ko commencé nag baat bi nag ñu koy jëfandikoo lu bari waaye loolu ñu digoon ci jàmm ci des démo tas démocratie ne maanute na am ci àdduna loolu dañoo doxal tuuti rek ñu gis ni programme boobu doxut États-Unis ci boppam moom mi jiite woon loolu moom moo am ay jafe-jafe yu wane ni ndekete lim ne woon mën na koo yanu ndekete mënu koo yenu bi mu demee Irak mu am fa problème ba lam ne woon la fay yóbbu daaneel ka mu daaneel na dafay indi jàmm dafay indi démocratie sottiwut mu dem Afghanistan def fa lam fa def dige fa lam fa dige jële fa ñam fa jële ne woon baaxuñu ne leen di da leen di indil ak mbaax jaxase ko jaxase ko ba mënatu ca dara mu dem bàyyi la ci côté koom-koom 2008 mu ñëw mu ñëw indi benn crise financière jafe-jafe ci wàllu koom boo xamante ni laaj laaloon na ñi nga xamante ni ñëpp ñoo ànd ak moom muy ay alliés kon ñu gisee ni ndekete lim doon woote mënu ko tële na ko kon tey jii nii jamono bii ñuy dund tembe man damay wax ni xaw ma ndax àdduna day jeex loolu wóoruma ndax àdduna dafa nekk di jeex wóoruma waaye li ma am njott mooy am na àdduna buy jeex am na beneen àdduna bu war a taxawaat amna civilisation buy jeex te amna benen civilisation bu wara taxaw kon loolu moy ñaarel ponk yu moy liñ wax tëral aduna tëralin bu bees nouvelle ordre mondial ñetteelu ponk bi suñu sujet moy l'islam. lu tax lislaam mooy defee ne fi am ñu bari ñu nga xamanteni moom lañuy wuyoo lislaam doxaloon àdduna ab jamono am lu mu wane ñu del ñu toll foo xam ne dañuy wax ni dañoo war a xoolaat nu ñuy doxale àdduna ndax niñ koy doxale baaxut ñu ne marché boobu nga xam ni ku nekk dafa war a indi marchandise bi nga xamante ne jàpp na ni baax na ngir suñ ko jëfandikoo àdduna jag ñu ne marché boobu lislaam dafa war a yóbbu marchandise ndax su gën lawul kenn tamit kenn gën lawu ko kon ndugg mi ñuy war a nduggaat lislaam marché boobu dafa war a yóbbu marchandise loolu mooy ñetteelu ponk bi nga xamante ni mooy li ñu wax ni al badilul islaami kon ni mu ko waxee sànq ci tomb yi nga xamante ni moom lañ koy tënk موي خلو وقتان بي موي الإسلام بان تخواي لن لا مانا اندي لن لا مانا ديف تي تيرالين بو بيس بيغا خامتاني موم لاني فاسيني تيرال واي غير واني لولو دي نان تخاو تي الإسلام نان لا غيسي ادونا باسكو فوني وخه دفرات ادونا رك سيفيليزاسيون داي دوغ ndax nit doxalinam likoy likoy li nga xamante ni moo ko koy leeralal mooy civilisation bi nga xamante ni moo ko togg ñit civilisation moo koy giddee moo tax fu ñu waxee togg rek civilisation day dugg te fu ñu nee civilisation bu ñu waxee bu lislaam bi jàkkaarloog moom mooy civilisation bu tubaab yi mooy civilisation occidentale te ni ngay doxalee tëralin yi ngay tëral yi ngay tëral ngir àdduna li koy cuub mooy ni nga gisee àdduna sa ni nga gisee àdduna loolu mooy cuub tëral yi tëralin yi ngay tëral ngir doxal ko kon moo tax dinañ wax lislaam nañ la gisee àdduna waaye mënuñoo wax nu lislaam gisee àdduna te duñu wax ki nga xamante ni moom moo indi programme bi appliqué ko bàyyee ñu ko ne nañ ko doxal muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dinañ xayma civilisation occidentale civilisation tout yi nga xamanteni ni fi nek ba lan la def ndax dafa am dinañ ko xayma ndax ndax matal na wala matalu su ko ñu a xool lan lay proposé lan lañ jox lan lañ ci ñu génn ci guta gi nga xamante ne suñ taxawé ci l'islam numu numu gisé aduna l'islam dafa jàpp ni nit ñépp ben famille lañ parce que yàlla bimu ñu wax ci alquran يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ñun ñépp ñoo bokk fi ñu bàyyi ko ci li li ñu war a taxawee ci kaw suuf ngir ñu mën koo taxawee foog ñu jàppalante ci moo xam dañoo bokk ay pas-pas wala bokkuñu ay pas-pas ndax yëfu pénc la pénc mi ñépp la concerné moo tax niñ koy saytoo ak sàmm jàmm ji loolu waa pénc mi ñépp la yitteel ñépp ci war a bokk moo tax lislaam jàpp ni jàmmi àdduna nit ñepp ñoo ci war jappalante jàppalante boobu ci lañuy mën a tabaxee civilisation ndax civilisation mënul nekk liggéeyu kenn te dinañ gis foofu ni fa euh, civilisation l'islam wuutewee ak yeneen yi kon foog ñu jàppalante foog ñu mbokkoo parce que mbokkoo gi nga xamante ne ñun ñëpp moo ko ñoo ko bokk mooy mbokkook nité muy fraternité humaine al uxuwa al insaniya loolu ñun ñëpp ñoo ko bokk foog ñu seddoo ndax ku nekk daa am loo am am lu keneen am daa am loo man am lu keneen man kon foog ñu jàppalante mbokkoo googu ñu lislaam wax bokk na ci tey jii jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund li ko indi bokk na ci ñàkkat doxal principe boobu mooy mbokkoo googu ñu mbokkoo mbokk googu ñun suñu nite boole ndax Occident lan la def mooy waxul ni ñun ñëpp ay mbokk lañ mais dafa def ni ñii ñoo féete kaw ñii ñoo féete suuf ñii ñooy ay sang ñii ñooy ay jaam ñii ñoo war a dominer ñii lañ war a dominer kon ñu yàq principe boobu lislaam nag ba muy wax loolu tey ëpp na fukki siècle ak ñeent mu ñëw rek dégager principe li ñuy may ñu dund ci kaw suuf ba doxal suñu projet en tant que ay nit mu wax ñu ni ya ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila mën a li taaruf foofu dugalul pas-pas parce que mbokkook nite gi la loolu mooy buum gi njëkk gi ñu njëkk a takke te yonent yi ba mu koy wax ca jamono boobu jàppoon nañ ni loolu daanaka lu munta nekk la ndaxte fa mu ko doon waxe ñooñu waxuma la sax ay réew yu yuy jokkaloog jàppalante mais ay ay giir la woon sax yu am problème ay giir yu nga xamante ne ñu bennoo rek ànd problème la problème la woon ci ñoom kon lislaam ñëw joxe principe boobu gis-gisam boobu noonu ci àdduna tey yooyu lislaam doon wax tey sooy xool discours yi bees yépp ci loolu la ñuy woote mooy di wax ni nañu jàppalante coopération mooy di wax ni nañu nañu bañ a Euh, teqale nit ñi teqale boo xamante ni day sukkandiku ci seen melokaanu yaram wala ci seen xeet waaw sans distinction de couleur ni de race li ñuy wax mooy na aada yeeg cosaan yi dafa wuute mais lislaam daf ñoo jàngal ni wuute wuute xeet ak wuute aada cosaan mënul nekk gàllankoor ngir ñu jëflante tey ñu ngi wax interculturalité mooy culture yi nañ duggante aada ak cosaan yi nañ duggante ndax ku nekk soo dugganteeg sa morom dina am loo jàng ci moom dina am loo jariñu ci moom kon tey li ñuy wax ay valeur universelle yépp dañuy fekk ni lislaam jàngale na ko ëpp na junni at ak ñeenti téeméer kon loolu su dee am na lu muy tekki mooy kon nañu yëraale waat njàngum lislaam parce que mbir mi du mbirum ngëm finalement parce que ku mu neex bul gëm lislaam ku mu neex bul gëm lislaam comme diine ku mu neex bul nangul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais mbir mi mbiru feebar la nangu nañ ñu dañoo feebar su fekkente ni rek da ngaa jëfandikoo sa xel nga rationnel mais pharmacie bi nga xamante ni boo fa demee am fa garab gi saafara mais da ngay dem wuti ko kon loolu rek la ñuy wax mooy garab gi giy saafara àdduna su fekkente ni dafa nekk ci pharmacie lislaam nañ ko jëli bu la neexee nag bul ko gëm ngir jël nag garab googu lislaam di proposé te mu mën a saafara suñu suñu jàngoro tubaab yi dañu am problème ak yonente bi sallallahu alayhi wa dañu am problème ak mom ñun ñëpp xam nañ ba fim mu ne nii lislaam ñu ngi koy ŋàññ gis ngeen temps yee ñi doon taal ay alquran yonent bi salaahu salaam toujours ñu ñàkkee ko orma jullit yi nyu bu nekk ñu melal leen ci ay melokaan yu ñaaw ay nitu fitna lañ ñaawteef bu am ci àdduna ñu ne ñoom la di jël ay baat ci lislaam di ko tuddee ñu nga xamante ne ay defkatu ñaawteef lañ ngir lan ngir telam tilimal deru lislaam waaye ngir fexe ba bañ bañ ko te wax yi ay nit ñoo koy wax ay kilifa politique ci Europe ñoo koy wax ay tasukaayu xabaar ñoo koy tas di wane seenu mbañeel lislaam te duñ ko nëbb mbañeel goo xamante ni dañ koo feeñal nangu ko waaye liñ war a comprendre liñ war a xam mooy lislaam bi fi bi mu duggee ci Europe li waraloon njëkk ñuy yàq deram surtout ñaawal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que boobu église bi da ko defoon ngir fexe fànq chrétiens yi nga xamante ne ñu ngi doon dugg ci lislaam ñu tudde war yonent bi sallallahu alayhi wa imposteur koo xamante ne li muy woote mbub mu muy wax ni moom la sol solu ko da koo sos li muy woote da koo sos wax nañ ko ni biñ demee ba gis li mu réussir yonent bi sallallahu sallam li mu réussir ci diir bu gàtt bi mu ko réussir mu jaaxal leen nu nit mën a amee ndam lu tol noonu luñ doon wax ne magicien la xanaa loolu beesul waa maa ko waxoon nañ ko ni njibarkat la lii nii du mbiru du mbir mu am nii rek waaye am na leneen lu ci rax ñu ne kon njibarkat la magicien la kon loolu beesul seen bind yi ñu daan bind yépp saa yu ñuy wax ci lislaam rek lu mel noonu la mooy fexe ba bañ loo ko nit yi waaye fexe ba joxe ci yont bi sallallahu alayhi melokaan bu nga xamante ne ni kenn du ko sob Adrien Roland dafa bind bindkat la mu ne mësumaa gis diine bu ñu ñàkk a xamee nii ci Europe maanaam lislaam ni ñu ko réeree ci Europe mu ne mësumaa gis diine bu ñu réeree nii ci Europe waaye mësumaa gis diine boo xamante ne ay noonam nii lañu ñaawalee deram maanaam ni ñu ñaawalee deram ci Europe mu ne mësumaa gis diine bu ñu ñaawalee nii deram mu ne diine boo xamante ne ñu koy jàngale mooy ay noonam diine boo xamante ne ñu koy jàngale mooy ay noonam mu diine ji lii dal diine ji lii dal mu ne diine muhammad sallallahu alayhi Wasallam. sallam image bobu nga xamanteni mom lañ am ci wala bok mom la seeni kat ak seeni borom xam-xam yépp amoon tay foog Occident ñeme xol yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci dayo il faut mu am honnêteté bobu xol ko ci dayo nango def la kat dembu yi defone ndaxte tubaab yi moo xam Voltaire moo xam Rousseau ñoom ñëpp bindoon nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa bind ko bind bi ñuy njëkk a bind ci moom dañoo sukkandiku woon rek ci liñ fi fekk ci wax yi nga xamante ni wax nañ ko ci moom te du lu rafet ñoom seen bind yu njëkk yépp dañ koo ŋàññ waaye ba ñu demee ba am contact ak réewu jullit yi monde musulman am contact ak surtout perse gis ay bind yu bàyyikoo ci jullit yi yu melal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ demee ba gis ni ba xam ni mu mel dëgg xam ni kon wuute na ak nañ leen waxoon ñoom ñëpp dañoo bindaat tagg ko ñoom ñëpp dañoo bindaat tagg ko kon Occident bu tey tamit tubaab bi tey tamit foog ñu am njàmbaar googu foog ñu am njàmbaaru xool Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy kan te mën nañ koo nat ci lu dul ay mbirum gëm mais xool ko rek xool ci xoolu xel kese maanaam xool bu objectif ndax nit ku mag nit ku mag mën nañ koo nattee ci ay critères yu nga xamante ni du jotee dara ak ngëm yàlla muy li ñu tuddee ay valeur yoo xam ne mën nañ cee nattee nit mën nañoo tudd ñeenti nattukaay ñeenti nattukaay yoo xamante ne ci kuñ ko fekk ku ne c'est parce que doo ku ndaw c'est parce que nit ku màgg nga bi ci njëkk mooy loo xamante ne ci nit ki lay doon valeur boo xamante ne ci nit ki lay doon xam nga dinañu wax ni kii c'est un grand homme kii nit ku mag la nit ku màgg la su fekkente ni ay bëgg-bëggam yàlla may na ko mu mu jëmmal ko maanaam mu réaliser ay ay rêve am ay objectif am moo xam alal jum doon wut la mu am ko moo xam tur la bu mu doon wut mu am ko siiw moo xam nguur gum doon wut mu am ko yooyu yëpp ay mandarga la yu nga xam ne dañuy wax ni kii nit ku mag la suñu xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañ gis ni koo ko méngaleel ci loolu mu raw ko ndax dafa indi message yonent bi dafa jiite kon yore pouvoir taxawal état jiite patch bu rëy ci aduna tabax civilisation civilisation bu nga xamante ba tay ji ni fuñ ko tegee teg benen mu daanel benen kon su fekkente ni foofu la ñuy nattee nit ku mag kon yonent bi sallallahu alayhi amu ci morom bi ci des mooy dinañ nattee nit kilifteefam ak màggaayam ci nekk gu mu nekk royukaay nekk gu mu nekk royukaay mooy mu nekk nit ku exemplaire ndaxte réussitu nit kenn du ko nattee kese ci limu mu réalisé maanaam ay bëgg-bëgg yu nga xamante ne nii dëggal nga ko jëmbal nga ko am nga ko waaye surtout royukaay gu mu nekk royukaayu réussite du rekk nga réussite mais nga nekk royukaay ci lool nekk rëdd aw yoon wu nga xamante ni mënees na cee jaar ngir réussir suñu xoolee foofu tamit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañ xam ni amu ci moroom nekk royukaay ci fànn yépp nag royukaay en tant que njiitu réew royukaay ci jëflanteem ak nit yi royukaay ci njabootam royukaay ci ñim bokkalul pas-pas waxal ni rek la suñu yaay Aïcha waxoon bim ñuy wax mooy kan ni moom mooy jëmmal alquran ci jëf su dee alquran ay wax la yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo jëmmal alquran ci jëf ndax dañuy wax ni al al kawnu quranun samit wal quraanu kawnun naatiq wa muhammadun sallallahu alayhi wa قرآن يمشي بين الناس إنفير موي موي أدنى بي ناتور بي داني القرآن جو نوبي القرآن جو وخوت القرآن نك إنفير بوي وخ مانم أدنى بوي وخ لا يونت بي صلى الله عليه وسلم داك موي القرآن جيغا خامتاني موم موي دوخ سي بير نيت مانم مو القرآن تي kon su dee ci côté royukaay xam nañu yonent bi sallallahu alayhi amu ci morom bi des bu ñu mënee nattee nit mooy wàccuwaay wu mu am ci biir aw xeetam muy valeur sociale te loolu mooy orma ak dayo bi mu am ci biir ci biir nit yi ci biir société bi te loolu defe naa ni tamit amu ci morom ñi ko gëm bëggoon nañ ko ay saxaabam bëggoon nañ ko ay noonam respecté woon nañ ko nangul ko ak mbaaxam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay noonam dañ koo nangul ak mbaaxam te loolu même tubaab yi sincère def nañ ko tubaab yi dëggu te xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même biñ ko gëmul sax nangu nañ ni kii kii du du du amul moroom kii du moroomu gaay gis ngeen Lamartine ba mu koy bindal di ko wax ni li yéeme li wane ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du moroomu kenn ci nit yi mooy soo xoolee toolam bi ni mu rëyee tool bi ni mu yaatoo moyens yi mu amoon ni mu tuutee ak li mu góob ni mu rëyee nee loolu amu ci morom George Bernard Shaw daf ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki réglé àdduna mu ne fi ne nii àdduna tamit mi ngi jëm ci guta li ñu ci mën a génnee rek mooy moom su mënoon a dellusiwaat su del siwaatoon moom mooy ci mën a génne mu ne wala boog koo xamante ni la muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon ba rek la àdduna mu mu sukkandiku ci jëfandikoo ko kookoo ñu mën a régler suñu problème euh, américain bi Michael Hart ba muy wax ba nit di nit ci kaw suuf ba tey téeméeri nit yi nga xamante ni ñoo gën a jeexital ñoo gën a def dara ci kaw suuf ñi gën a liggéeyal nit ci kaw suuf mu ko doon classé mu ne téeméer yi nga xamante ni ñoo gën a jeexital ci kaw suuf kam teg ba mu defee nattam yépp kim teg ci kaw mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moo ne gëmu ko du jullit gëmu ko mais def nii ku rek mëno tan keneen di fi baye muhammad sallallahu alayhi wasallam ci téré bi mi ni mi ngi naan lii sax dina jaaxal ñu bari parce que man gëmuma ko dina jaaxal ñu bari waaye li mu réussir la kenn réussirut parce que mu ne booy xool nit ñi ñi nga xamante ni dañ leen tuddee ay nit yu mag yoo nga xamante ni def nañ dara ci kaw suuf nee na boo leen di xool ku nekk dafa am fenn wala ñaar domaine yoo xamante ni la nga def fa nga ko def daa am domaine boo manee rek mu ne moom nag mooy ki nga xamante ni ci domaine yépp ngay fekk ni dafa raw ñépp sallallahu alayhi wa sallam moo tax benn ku ñu wax Annie Besant jigéen la mu ne yonent bi mën nga koo bañ a gëm waaye boo ko xamee dëgg mënoo koo bañ a bëgg bu la neexee nag mën nga koo bañ a gëm waaye nee na muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ko mënoo koo bañ a bëgg kon li tubaab yi doon tuddee ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu gisee ndam li mu am diineem ji ni mu tasaaroowee ñi ko sopp ni ñu baree tey tur wi ëpp wi ñu tuddee nit turam la sallallahu alayhi wa sallam loolu jaaxaloon leen bañ ni kii njibarkat la ne lii mu def nii du yëfi nit magie la mani ni magie boobu ñuy wax du dara lu dul yonte bi sallallahu dafa ñëw wax ak nit ci fitra mooy dafa waxeek nit fi nga xamante ni ku fa waxeek nit nit dégg la ndax fa lay déggee kon suñ bëggee jariñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma wax lu jotewut ak dara ak ngëm foog tubaab yi xoolaat gis-gis boobu ñu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foog ñu rectifier ko foog ñu corriger ko te loolu ngir ñu def ko nag foog ñu am courage foog ñu am courage génn ci ragal bi parce que mbir mi dañoo war a génn ci ci conflit ak mbëkkante ci loolu lañu war a génn

ba nga naan da ba nga bala nga naan ma xool ak ma natt ñu dal sa kaw xool leen rek tubaab bi dañu indi conflit diggante nit ak nature bi ñoom ak nature bi dañu am conflit ndax dañoo ñëw ne léegi ñoom nature bi ñoo ko moom l'homme est le maître et le possesseur de la nature conflit ñëw parce que moomuñu ko yàlla xam gum xamoon ne xëy nit dina dem ba àgg fenn ne moo moom moo moom univers bi moo moom adduna bi moo tax ci alquran mu ñuy baamtul rek walillahi walillahi maa fi samawati wa maa fi l ard di ñu ko baamtul rek kon conflit boobu mu indi nit dañ ko ni yow da nga fee ngir gérer mu bëgg ni maa moom te nit ni muy doxalee ci li moom bokkut ak li muy doxalee ci loo xam dañ ko ne dañ laa dénk loolu moo tax mu jëflante ak nature bi ni mu jëflanteeg moom ba tey mu indil ñu musiba yi ñu indil tey ñun ñëpp àdduna bi yëpp dëppoo nañ ci ne ni ñuy jëflante ak nature bi suñu continuer alko moo ñu indil ay réchauffement climatique ak ay gaz à effet de serre yi nga xamante ne mu ngi ci jaww jeeg yëpp rek kon foofu gis ngeen tuwaay yi dañoo indi seen ko dañoo indi conflit seen diggante ak ak diggante nit ak nit ñu indi fa conflit l'islam wax ni non nit ñépp ay mbokk lañ ci nite dañoo war a jàppalante tubaab yi ñëw ni déedéet daa am ñoo xam ñoo gën daa am ñoo xam ñoo féete suuf du leer ci loola taxawoon jàpp ni moom moo gën ñoo féete suuf donc conflit am mu indi jàmpateeg reyante yeeg notaateeg coloniseeg domineeg jaamloog yépp ci biir waaye tamit civilisation occidentale indi conflit fait. ak ndax Nous dem nañ ba fenn ñu Nous ni soxlaatuñ yalla moy le positivisme nañ ba fenn ñu ni ah waaw nit kat dafa soxla yalla parce que amna yo xam mënu comprendre comme mënu comprendre rek mu acc ko ci affaire dem na dem na ba fenn âge métaphysique bi âge théologique bi positif ñu ne nit léegi mat na nekk na mu kàllaf xelam mat na soxlaatul yàlla lépp lu muy doxal rek na ko natt ci xelam ne xelam nekk nattukaayam kon léegi ñu génnee yàlla génnee wax yu foofu tamit ñu indiwaat fa beneen conflit parce que dañoo défier yàlla parce que yàlla def nañu kaw suuf li ngeen fiy doxal man maa leen jox notice bi su ngeen ko bëggee doxal mu jaar yoon liir leen notice bi te jëfe ko notice bi mooy alquran mu jox ñu koo xamante ni daa ñëw appliqué ko ngir ñu mën cee roy muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka mu nañu du ngeen am jàmm mukk yàlla daf ñoo dëkk du ngeen am jàmm mukk su ngeen teguwul fi ma leen wax suñ benn sëriñ daara di wax ni alhamdulilah bi dara doxut alhamdulilah bi dara doxul parce que yàlla moo ne ñu du dox su ngeen jaarul fii jaaruñu fa dara doxul kon alhamdulilah kon Occident loolu la def mooy indi ay conflit lim ñu digoon ak modernitéem mooy wax ñu ni nit dina dund jàmm nit dina dund jàmm nit dina dund xeewal nit dina dund dal ci kaw suuf ci loolu la ñu imposer modernité te biñ koy indi encore conflit la ñu indi ndax ba Bonaparte di jug ca 1798 gàddu modernité am njëkk a dugg Égypte te soo déggee Égypte rek mooy buntu buntu monde monde monde monde musulman ba mu ñëwee proposé wul li mu jàpp ni dafa baax mu ni ko daa ñëw imposé ko par force suñu réew mi tubaab yi bi ñu ñëwee noonu lañ def ñëw am lim ci fekk au lieu ñu proposé soo jëlee ci côté langue bi ñëwee ak seen làkk fekk fi arab ñu koy jàngee di ko bindee bi ñëwee dañ ni da ngeen di bàyyi làkk bi moo indi jàppante def lépp ngir raxas ko. Occident loolu mu digon, digoon te mooy jàmm digon, mu ñu digoon te defu wala bok dafo digon té manuko té manuko ndax déséquilibre moy ñaka tollo parce que ngir dara dox dox bu jup fokk mu tolloo euh, bindkat bi ñuy wax Raghib Surjani dafay wax ni civilisation mooy nit man-man gi mu am ba fexe ba jëflante bi mu war a jëflante ak yàlla tegu ci yoon jëflante bi mu war a jëflante ak moroomu nitam tegu ci yoon jëflante bi muy jëflante ak àdduna bi muy univers bi nature bi tegu ci yoon mu ne ñetti ponk yooyu su fekkente ni mànde xewul rek mbir yu sooxe moo tax tey su ñuy wax réew mu développé war nañu xoolaat natukaay bi ndaxte réew mën naa defar relation ñetti relation yi mën naa defar benn bi wala mu defar ñaari te du defar benn ba nañ jël tubaab yi suñ jëlee ci ñetti nattukaay mooy defar sa diggante ak yàlla ba mu équilibré wu sa diggante ak moroomu nit yi équilibré wu sa diggante ak nature bi équilibré wu mën nañoo wax ni tubaab yi ñu nangu ko ne ci côté jëflante ak nature bi nañ wax ni seen relation équilibré na même su fekkente ni équilibré wul parce que gis nañ ko léegi ñoom développé nañ foofu bu baax ci di génne ay fent yu bees di def ay découverte scientifique di def ay développement technologique ñi ngi def loolu mën nañ wax ni foofu développé nañ ko bu baax ba raw fa daanaka ku dul ñoom mais est-ce que seen diggante ak yàlla est-ce que équilibré na seen diggante ak yàlla équilibré wul parce que nangulatuñ ko est-ce que seen diggante ak moroomu nit yi est-ce que équilibré na équilibré wut ndax yàq nañu relation wu diggante nit ak nit ci biñ jàppee ni ku ëpp doole daa war a dominer mais est-ce que civilisation mën nañoo wax ni civilisation bu jëm kanam la civilisation bu nite la civilisation boo xamante ni soo yoree li mu bëgg jaral na ko mu taal xare sa kër ndax mën a ñëw jël li nga li nga am ndax loolu nit kiy def lool nit ku développé la mën nañu laaj est-ce que nit ku développé la réew moo xamante ni soo bayee li nga bay mu ëpp say soxla nga bëgg koo jaay njëg gu cher dalay jaral nga tuuri ko ndax nga mën a jaay njëg gu cher ndax kooku ak niteem mi ngi fa ndax ak nite la ndax ak jëm kanam ndax ndax civilisé la ay nit yoo xamante ne dem nañu ba yàgg ñu ne ñaar ñu bokk sexe mën nañoo sëy góor ak góor mën ngeen a sëy jigéen ak jigéen mën ngeen a sëy ndax loolu développé la ndax nit ku xelu la ndax nit ku ku yewwu la ndax nit ku civilisé la nit ñoo xamante ni di ut ay ngànnaay yu ñu faagaagale nit lañ cay def ci alal moo leen gënal ñu fexe ba nit ñëpp naan am ndox mu ñu naan te xam nañu réew yu mag yi li ñuy def ci ci seen ngànnaay yi suñ jëloon genn wallaat gi rek nit kuy mar ci kaw suuf du amati te lii dee par bis ngir mar ci àdduna kenn xamul nu mu toll te pourtant réew yooyu la ñu tuddee le le les pays développés kon est-ce que loolu moy développement est-ce que loolu moy civilisé est-ce que loolu ak nite la kon civilisation tubaab yi li mu won finalement defuko ko kon ndaxte mënu ko waaye parce que notice bi la nanguwul jël te notice bi nag bu baax bi kenn doon ko mën a joxe mooy ki bind nit alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful xabir lislaam bi mu ñëwee di dafa simplal nit mu comprendre nangu dugal yàlla parce que tey problème bi mooy génnee gi ñu génnee yàlla ñàkk nangu gi nàkka ñàkk nangul yàlla mooy problème essentiel bi Occident li ñu lay wax mooy vide spirituel yàlla place bi mu am ci nit loo fa def lu dul moom du ko fees parce que nit ki ñaata yoon la ñuy dégg ci tubaab yi koo xamante ni am na alal bu dul jeex maanaam bu dee teraangay àdduna am na lépp am na alal am na tur am na nguur am na ay junni junni nit sax yu ko bëgg yu ko sopp mu jékki-jékki xëy rek door boppam bal de kooku lu ko manqué ba tax mu rey boppam ci lan la amul mbégte ci boppam lan li mu lekk yépp suurut lu tax mu continuer di xiif ba léegi lu tax lim yaakaaroon ni su ko lekkee regg mu lekk ko te reggul yëg ni mi ngi xiif ba léegi te star star américaine yi ñuy gis yépp nga yëg nga ñàkk yëg ñoom ñépp saa su nekk dañuy dem ñu leen di defar ay cure mooy drogue bi day dem ba bari ci seen yaram ñu dem ngir ñu raxasal leen ko te pourtant ndaw yu bari ñoom la ñuy xool di leen ñee nga leen di ñee ndax mbooloo mu bari mi leen di topp nga leen di ñee ndax seen dund duñ ci ñàkkati alal waaye ñoom yëguñu ak texe ci seen bopp kon lan moo manqué moo taxoon benn benn benn bindkatu tubaab ni civilisation wu tubaab yi mooy civilisation boo xam ne dalay jox lépp ba mu des li am solo lépp la lay jox nag ba mu des li am solo léegi tubaab yi lislaam beesul ci ñoom coow li coow li ak yàq gi ñu yàq deru lislaam yépp ak tilimal gi ñu koy tilimal ak kilifaam di yonent bi sallallahu alayhi wa lislaam beesul ci ñoom yàgg nañu jëflante ak lislaam lislaam jële nañ ci ñoom jële nañ ci lislaam lu bari waaye loolu lañ nanguwul reconnaître tubaab yi soo demee dañuy nangu seen ndono gi ñu jële ci grec yi soo demee dañuy nangu seen ndono gi ñu jële ci Rome yi dañuy nangu seen ndono gi ñu jële ci chrétiens yi ak juifs yi waaye duñ nangu mukk seen ndono liñ jële ci lislaam duñ ko nangu waaye dañ koy nëbb ci nëbb googu moo tax sax tur yi nga xamante ni ay turu araab la te ñu jëlee ci ñoom ay xam-xam yoo xam ña ngi koy jëfandikoo li ñuy def mooy tur yooyu dañ koy soppi ba muy saf turu tubaab nga xam ne yow soo ko déggee te xamoo dangay ngay jàpp ne kii boroom xam-xamu tubaab la ibnu rushd ibnu nga xam ni tubaab yi ci moom lañ xamaate Aristote parce que jullit yi ñoom ñoo gis nga philosophie philosophie grec bi ñu lay wax tubaab yi ñu ngi ko jëlewaate ci julit yi julit yi li ñu ko ci grec yóbbu ko ci arab tubaab yi référence yooyu lañ jël moom lañ jëfandikoo waat traduire ibnu rushd dañ lay wax ni soo bëggee xam aristote ibnu du mooy bunt bi ibnu rus lañ jàngale ci ci université yu occident ay siècle mais fo fekk ci sen bindi duñ la wax ibnu rushd da ngay fekk ñu bind averroes averroes dafa saf tru grec dafa saf tru philosophe grec so jele ibnu sina so deme ci sen bindi do fekk mukk ñu la ibnu sina dañ nan la avicenne so gisee avicenne da ngay gis ni mok turu grec yi su ko defee da ngay jàpp ni borom xam-xam grec la so jëlee alxuwaarasmi doo fekk mukk seen bind yi ñu ne la alxuwaarasmi algorithme parce que moom moo sos xam-xam boobu noonu kon nëbb googu ñuy nëbb lépp lu nga xamante ni jëlee nañ ko ci lislaam ñu koy nëbb te ndono loolu foog ñu reconnaître ko ndono loolu ñu jëlee ci lislaam foog ñu reconnaître ko kon équilibre vide boobu muy vide spirituel boobu nga xamante ni moom la ñuy jooy déséquilibre boobu moom la lislaam di dugalaat foofoy dooleem loolu tax lislaam nekk diine diggu doomu parce que day bàyyi xel wàlli nit yépp lay bàyyi xel dimension wu nit yépp lay bàyyi xel motax l'islam fumu ñëw mom amul problème par parlo motax tax bu naan la civilisation l'islam lan la civilisation l'islam moy fépp fu l'islam dem rek lam fa fekk mu bax rek da koy jël loolu moy civilisation fumu dem fune rek tame bi rek lay yor dadi lay lépp lu dàqonte ak diine ji mu génné ko lépp lu dàqonte wut ak mom rek mu bolé ko ci lolo tax ngi gis xam-xamu l'islam yu wuté yi da ngay gis ñu dul arab rôle biñ ci jouer tay xam-xam yu bari ñi nga xamanteni ñoy ñom lañ cay tuddu duñ ay arab parce que l'islam amul problème boobu te loolu ci tàmbali ba la yonent sallallahu alayhi wasallam boolewul won abou Bakrin Qurashi bolé bilal ibn Rabah حبشي بولي سلمان فارسي بولي سهيب رومي بس لول لول الاسلام غم لول لا غم بولي نيدي لا غم موتا سيفيليزاسيون فوم ديم رك لا باخ مو جيلكو غيس نين سونيي واخ حديث ñun ñëpp ku ñuy tudd mooy buxaari te pourtant du arab su wax ci côté langue luga Khalil ibn Ahmad al-Farahidi nga jël siba wayhi ñom ñep duñ ay duñ ay arab soo jëlee côté littérature adab Bashar ibn Burd man nga tuddu tur yu baree bari soy xol ashabu sunan da nga gis ni ñom ñep duñ ay arab parce que l'islam un problème boobu l'islam ñépp lay intégré ci intégration bobu amu ci woon problème tamit ak ñi dul jullit l'islam amu problème ak ñi dul jullit parce que fi même rew mi sax suñuy wax di wax ni l'islam dafa wara am place bim bim, am dañ cee wara delu dañ cee wara sukkandiku ci suñuy dañ wa ñi dul jullit ci réew mi nag nuñ ñu leen di def mel ni comme si l'islam dafa am problème ak ñi nga xamante ni nii gëmuñu ko l'islam musulman problème boobu parce que lu jëm ci penc mi l'islam nit ki lay gis yonent bi type alayhi wa sallam bi mu egsee Médine fekk na fa ñoo xamante ni bokkut ak ñoom pas-pas bokkut ak ñoom projet de société waaye bi saytu penc mi ak ja ak sàmm jàmm jàmmi penc mi taxawee daf leen a woo ne ñoo ko bokk def pacte ba mu defoon ak yahud yi nga xamante ne ñoom la fekkoon Médine constitution ba mu bindoon dana leen àq yi ñu am àq yooyu ngeen am waaye li ñu war tamit moo leen war parce que ñoo bokk réew mi yonent bi sallallahu alayhi wa ñaati yoon la signé ay pact pactu jàmm waa màkka siñewul ak ñoom sulxul xudaybiya siñewul ay ay ay accordu jàmm ak chrétiens yu najiraan parce que l'islam amul problème boobu moom rek ni mu bàyyee xel ñi nga xamante ni bokkut ak ñoom pas-pas amul tëralin bu bàyyee noonu euh, ñi nga bokkulul pas-pas cim réew amul parce que l'islam du forcer ñi ko gëmul ne leen far force da ngeen leen di gëm même su nekkee sax ci situation de force bu nekkee ci position de force te àdduna bi yépp nag képp ku nekk position de force dangaa mës a imposer sa gëm-gëm ku mës a gañe say noon dangaa leen a imposer sa bëgg-bëgg l'islam mësul dugg fenn bari nañ toj église yi bani nañ toj synagogue yi bani far force da ngeen di dugg ci sama diine mus ko def te xol leen fi rek ñi fi gagné ñep ku ma sa gagné da nga toroxal da nga toroxal ña nga gañe sànq ñu ngi wax guerre mondiale guerre mondiale ñi gagné biñ gagné nuñ def toroxal ñañu gagné empire yi nga xamantene dañu nekkoon ci seen côté non dañ leen a tas signéloo leen ay accord yu nga xamante ni mu neex leen mu naqari leen amatoo sañ-sañu am ngànnaay dangaa war a wàññi sa say say militaire toroxal doole yi fi nekk yépp ku gañe rek da ngay toroxal da ngay toroxal ka nga gañe lislaam musul def te suñu demee ci doxal pénc mi l'islam tamit amul problème ak pass pass moy ndax man nga ko soko mané rek ñu jox lako soko mané rek ñu jox lako dafa am ay compétence yu nga xamante soxlawul pass pass dañuy xor rek ndax am nga compétence fi so amé compétence bi ñu jox lako motax université bu mag bobu ñuy dégg muy université bi gëna mag bi civilisation musulmane tabax muy baytul xikma ca al abbasiya ñaari recteur yi ko ñëk jité pourtant ay chrétien lañ won te julit ya nga fa won waye dañu gis ni mën nañ ko am nañ compétence bi te compétence bi soxlawul ñuy nat nit ci pass passam ñu jox leen ko muy yuuxanaa ibnu masawayhi ak xunayn ibnu ishaq nga xam ne ñoom ñoo njëkk a nekk recteuru baytul xikma kon lislam dafa jàngale ci doxalinam ne civilisation boo ko bëggee tabax doo boddi kenn te safaan bi lañu gis ci yeneen ci civilisation bi nga xamante ni moo fi dominé ba tey mooy boddi lislaam dafa gis ni tabax civilisation nañu boole doole yépp ndax ñépp lañ soxla te li ñuy tabax te li ñuy tabax ku nekk ci war a indi ku nekk ci war a indi brigam kon tey suñ bëggee tabaxaat civilisation bu bees su fekkente ni xamatuñu fi ñu jëm su fekkente ni li ma ne awra ji um ñeeku na awra bëgg nañ koo sàngaat su fekkente ni caq bi ma doon wax sànq ni dagg na caq boobu bëgg nañ koo nasaat fokk ñu siwaat ci principe yi waaye fokk ñu éviter théorie bi nga xam ne daf ni civilisation yi fokk ñu mbëkkante fokk ñu xeex théorie bobu di wax ni civilisation yi foog ñu xex muy clash des civilisations lu tax ñu war a parce que ñiko théoriser ñing ci logique affaire ba affaire am doole la rek aduna bi ni ñu jëm bind côté américain bobu ko théoriser dafa xol gis ni tubab yi sen doole mi ngi gëna a sensibilisation mi ngi daanu mu gis ni am na yeneen doole yuy juddu mu jàpp ni doole yooyu suñu booloo suñu ëppee doole États-Unis dinañ ko not suñu ëppee doole Occident dinañ ko not te bi mu xoolee mu gis doole yooyu doole bi ci gën a jug doole bi ci gën a wane ni euh, dekkeem day dekkiwaat te day amaat doole màndarga yëpp loolu la wane mu gis ne doole jooju lislaam la mu daan ni kon Occident gaaw leen ngeen dajaloowaat boolewaat seen doole ndax mbëkkante bi munta ñàkk xeex munta ñàkk kon waajal leen seen bopp ngeen booloo civilisation bi ñu war a taxawaat su bëggee dem ak théorie boobu du dem mooy jàpp ne forcément dañoo war a xeex jàpp ne forcément dangaa war a am doole te soo amee doole li ngay def mooy not ki nga ki nga ki ki nga ëpp doole wala sax soo ko mënee faagaagal mu jóge fi complètement nga faagaagal te fi mu ne nii ci logique yooyu lañ nekk même fi mu ne nii ñu ngi wax ni doole yi ñu ngi ñu ngi tëgguwaat sooy xel dañ naan la bloc Chine ak ak Russie mooy lan mooy nañu am doole ba mën a jàkkaarloog keneen ki jàkkaarloog yëpp mooy suñ ko mënee faagaagal rek ñeneen tamit ñu ngi fexe di dajaloo mooy lan mooy fexe ba mën a faagaagal keneen ki. logique gi faagaagalante boobu lañu ñu war a génn te loolu lañu ñu waxoon ñu génn ci noonoo gi ñu nekk parce que tey sooy xool réew mu nekk lan la ñu def ku nekk yaa ngi ut doole ji gën a mag arme yi gën a mën a faagaagal nit gis ngeen Russie léeg-léeg mu mu yëngal mu yëngal arme nucléaire bi menacé ne mën naa koo dóor te armu boobu dañ ne woon dañ koy da koy xuuxalaatee rek ndax boo ko amee ñu respecté la ku la bëgg a këll-këllee nga génnee ko xuuxal ko ko mu mu joxaat la sa cër mais tey gis nañ ni tey pare nañu ngir jëfandikoo ko ngir faagaagal ngir dóoraate yar boobu nga xam dañ ko daan yëkkati rek ngir xuppaate tey dañoo gis ni ñi ko yore pare nañu ngir dóoraate ko kon ci tënk suñu bëggee génn ci pax mi nga xamante ni dugg nañu ci foog ñu dellusiwaat ci njàngaleem ki nga xam te ñeme ko parce que bokk na ci jafe-jafe yi yi tax l'islam li muy proposé xaw a jafee dégg mooy soo dañ naan la waaw ok yéen jullit yi nee ngeen solution bi ci seen diine ji la nekk waaye yéen nu ngeen mel nu ngeen mel tey bokk ngeen ci réew yi gën a dellu gannaaw ci wàllu yépp te dëgg la tey bokk ngeen ci réew yi gën a doyadi te dëgg la bokk ngeen ci réew yi gën a noonoo te dëgg la ñu ne kon léegi yéen li ngeen ñuy wax moom ana anamu loolu problème la loolu mooy kon jullite am nañ responsabilité parce que message boobu noonu ak saafara soos nga xam ne ci seen pharmacie la nekk ñu gis ñi feebar bi ñu naan ñeneen ñi kaay ñu faj leen ko feebar bi mi ngi ci ñoom kon nañ njëkk a faju nañu njëkk a faju parce que tey ñu ngi wax ni àdduna moo war a jël lislaam àdduna moo war a jël njàngale lislaam mais ñun suñu xoolee suñu wewu tànk dinañ gis ni ñun jëlaguñ ko ñun jëlaguñ ko pourtant réew mu mel ni suñu réew li fi nekk ci ay jullit nekk fi te léeg lekk sax soo leen waxee solution wu lislaam sax ñoo ñooy njëkk a lànk kon nattukaay bi lislaam suñuy proposé saafaraam nattukaay bi du nekk feebar bi nekk ci jullit yi kenn du xool ci jullit yi ngir natt lislaam jullit yi kenn du xool ci ñoom ngir natt lislaam moo tax am na benn Euh, star la woon bi mu duggee ci lislaam mu ne mi ngi sant yàlla bi mu xamee lislaam laataa muy xam jullit yi ndax su xamoon jullit yi avant muy xam lislaam xëy na du dugg ci lislaam waaye ndokk ba mu xamee lislaam ba noppi doo a xam jullit yi xam ne ndekete du du lislaam moo moo di waaye jullit yi ñoom ñoo wàcc seen ànd moo tax ñu mel ni mu mel nee na waaye bu du woon loolu du ko comprendre lislaam la gis ak njàngaleem natt ko ak jullit yi gis ñi jullit yi ñoo ko fi bàyyi moo tax ñu mel niñ mel kon jullit yi am nañ responsabilité ci wane image lislaam bu rafet ci jël saafara garabu lislaam yi ñoom saafara wu wér na ñu ngi nii yéen feebar yi ngeen di jànkonteel ñun ñu ngi nii li ñu faj a ngi nii kon xëy na suñ nee ñeneen ñi kaay mu faj leen ñu nangu ko dina gën a yomb kon xëy na mu mel ni waxtu waa ngi jege si kon xëy na ñu doyloo loolu euh, di wax ni foog ñu nangoo proposer marchandise ul islam parce que bu dee ñun suñ problème si suñu réew mooy dañ nañu marchandise ul islam du ngeen ko fi proga du ngeen ko fi présenter marchandise mu waaye am nag am nga sañ-sañ teg ko ci marché bi même su dee sax marchandise mu nga xamante ne ñëpp nangu nañ ñi baaxut mais dañ ne am nga sañ-sañu proposé ko parce que ku bëgg jël ku bëgg bàyyi ku bëggul bàyyi mais dañ ne ñu nag lislaam moom kenn du ko proposé ci marché bi te loolu jaaruwul dafa war a jeex mooy liñ ñu wax ni réew ma layig lañ laïcité bi loolu la wax mooy lépp lu nga xamante ni danaan sama programme bi may proposé dama koy jëlee ci wax waxyu sama programme bi ma proposé dama koy jëlee ci njàngalem Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi jëlee ci communiste yi nangul nañ leen ñi jëlee ci ci socialiste yi nangul nañ leen waaye ñu ne ku jëlee ci Seydina Muhammad ñu ne sa sa marchandise doo ko proposé ma ne loolu jaaduwul loolu dafa war a jeex dañu war a nangu marchandise yëpp rek ñu proposé leen ci marché bi doo dañuy tànn nañ bàyyi nit ñu ñu am liberté tànn wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëñ Ismaïla Diop ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne àndinga ko te mu jëm ci crise mondiale bi nga xam ne l'islam modèle la ci andi gi mu andi tëralin bu weesoo noonu kon ñu ngi la ci sant bu baax a baax a baax xam naa ngir njëkkante waxtu bi rek ndax laaj yi am na ay laaj yoo xam ne ñëw na fi dañuy jox sëñ maam Thierno maam Thierno Diop su ko defee mu indi contribution am su ko defee incha allahu taala bu yeggalee ñu ñëw ci laaj yi nga xam ne moo fi moo fi wàcc. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعلن ngi leen nuyu di leen ziar bu di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di ñaan borom bi nga xam moo ñu defal tawfiiqu tàmbali ko ba fii ñu toll di ñaan borom bi mottali ko jàmm te yàlla nangul ñëpp incha allahu rabb ñu ngi siyaar bu baax xalifa al aam bi nekk fii ci Daaru Muxti di siyaar bu baax sëñ Abdou Mbakke macha allah di ko siyaar di siyaar mbokk yi ñu fekk yëpp naa waxtu yi moom bu jotee mbokk njaayeen yi ñu dalal dañuy xaw a bég lool ba ba mot dinañ fàtte waaye yàlla yàlla sàmm leen bu baax xam naa toftal ay kàddu ci li docteur Ismaïl yëy yàb bi dina jafe waaye damay wax rek ne lislaam moom amul woon jafe-jafe frontière doy na rek ñu ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi fi ne joge ba tey ñu nekk ci 1444 ci Sénégal ci dëkk bu ñuy wax Daaru Muxti di daa di dëkkub Maam Cerno radiyallahu anhu ñu ngi fay waxtaane lislaam ak ay solution loolu doy na rek ñu xam ne kon lislaam amuloon jafe-jafe frontière l'islam moom ay mbiram mooy communauté lay wax te buy wax communauté mooy ñun ñëpp ci lañ bokk waye bimi wote wootee way nit ñi docteur ismaël ci tàmbali wax nako ba'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu lan suñu xamante ngir lan la pour ñu pour que ku ñu nous soyons complémentaires ngir ñu mën a mottalante maanaam xamante bi mooy tax ñu xàmmante ñun suñu biir ku nekk ne borom bi subhaanahu wa taala jagle yu baree baree bari tasaare na ko ci àdduna bi te ku nekk am na lu téye moo tax àdduna bi ngir mu jag faw dañuy góor góorlu ci mottalante ku nekk indi ci la nga am ñu mën a mottalante loolu mooy loolu mooy jubluwaay bi beneen bi it mooy ñu xam ne lislaam moom nooteel taxu koo jóg daanaka beneen idéologie bu ñu la wax buy dugg ci dëkk wala ay ñooñ la muy njëkk def mooy fexe ba noot leen fexe ba wedduloo leen seen bopp loola la tubaab bi def fii bi mu ñëwee dafa ñu ne rek yéen seen xam-xam mi ngi yem ci bi ñu fi duggee yéen laata ñu yegg ci ci xamu leen dara te buñ ko waxee da ngeen naan waaw mu mel na am na ñu ne waaw waaye bari woon nañu bañ ndax bari na loo xam tey buñ ko laajee boo ko sampee laaj buñ la waxee ne Cheikhul Khadim Serigne Touba radiyallahu anhu lu tax mënu woon a am jàmm bañ ba dëppook ñoom dañ kon dañu li ci teg rek mooy dañoo ñëwoon rek ngir mu weddi fàtte li mu xamoon ak li mu gëm ñu ne ko faaw dangay gëm li li nga ñu bëgg rek bañ gi donc loolu rek la bu ko defee ñu ne ko dogon doo fi am jàmm keneen noonu keneen noonu loolu nag lislaam moom ba mu jógee ba yàlla defee sax mooy njëkk a def immigré nga xam ni saxaaba yi am na loo ñoo xam te ni lim boo xam njëkk njëkk dem xabasa jaafar radiallahu anhu jaafar ibn abi talib radiallahu anhu ba mu taxawee ci kanamu buur ba féral ndeel ne ni lislaam moom li jàngale yëpp mooy baax ndax ñun de xamoon nañ xam nañ koo xam te jub lañ xam ci moom ak baax bi mu mu ñuy wax yàlla di ñu suñu askan di ñu fàttali jub di ñu fàttali suñu diggante di ñu fàttali bëggante dimbaleente jàppalante lii nag fu mu deñ nit dootu fa am moo tax ba ñu nekkee xabasa amuñu fa woon jafe-jafe yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu gàddaayee bi mu yegsee madina abdullah ibnu salaam nee na bi mu ne jàkk kanamu yonent bi sallallahu la xam ne kii moom mënta wax lu dul dëgg dëgg rek la mën a wax waaye la ko ci gën a marqué bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi bi mu ñuy wax ak ñëpp def ne لا لا تؤمنوا حتى لا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ndax yéen xam ngeen ne doo leen mukk dugg aljanna lu dul da ngeen a gëm doo leen gëm nag lu dul da ngeen a soppante waaye kaay yi ma wax leen yoon wi nga xam te ni boo leen ko defee di ngeen soppante ñu ne lan mu ne fexe leen ba di tasaare jàmm seen diggante dee leen jàmm sante loola bokk na ci li nga xam bokk na lu ko gën a marqué te yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu duggee ba mu ñëwee itam fatxu Makka it bi ñu ñëwee ku ne xam na ne fay yunte taxu ko woon jóg ndax jullit moom lépp loo xam lu muy def mooy ni muy def rek ba am ci gërmaane borom bi subhaanahu wa taala li Cheikhul Xadim Serigne Touba doon wax ne subhaanallah al murid daal mooy laa yuridu xayra rahmaani xaysu xasada ak murit daal mooy koo xam te ni fépp fu mu mën a nekk borom bi subhaanahu wa taala li mu bëgg rek loolu mooy jubluwaayam loolu nag mooy jubluwaay jullit bu mu mën a doon moo xam système bu islam teg ci kaw suuf bu lislaam demee ba war a ay it lislaam du nekk loo xam day ñëw ngir fayonte xam naa ci jeexal bi rek docteur Ismaël laal na loo xam te ni mooy jafe-jafe jullit yëpp fi mu toll ni ñun suñu jafe-jafe yëpp mooy jullit yi ñoo gën a daanaka xeebante seen diggante ba fi mu nii am na jullit yoo xam te ni am na dëkk jullit yoo xam jàpp nañ ñi ñoo gën ñi ci des ñëpp bu dul ñoom solution du am te faaw nag ñu waxtaan seen biir fexe ba ñoom ñu dëppoo seen biir doo ko wax keneen modèle bi ñu leen wan baax la ndax ñun fexe nañ ba ànd ci ba soppi loo xam jag na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki yi nii déglu ñu ngi leen di nuyu ci juróomi baat yi nga xam ne islaam moo ñu ko boole te moo di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. sëñ Ismaayila ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal ci turu mu assasatul wafa bi xuquqil iman waxtaan wi am na solo lool déglu nañ ko bàyyi nañ ko xel bu baax laaj yi firnde la ci doonte waxtu wi xat na lool ba tax na dañ ci jukki lennat rek mbokk mi da doon laaj nan la jullit ñi jàpp ni mooy wan yoon lañu war a mën a jaar ba islaam mën a doon ba diil ci nouvel ordre mondial بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وجلدي فن لن ورا منجار ممن لو لن jéemoona wane mooy jullit yi gëm nañu ni mënuñoo am jàmm su fekkente ni teguwuñu fi ci lislaam wax teguwuñu ci njàngaleem yàlla subhaanahu wa taala loolu daanaka jullit yëpp nangu nañ ko mu des dafa am ñu ñu jàkkaar lool ñooñu ñu jàkkaar lool nanguwuñ nangu lu ñu ni en tant que gëm parce que mbirum pas-pas bi su dee lool ñoom concerné wu leen mais li ma waxoon sànq mooy question pratique question pratique la problème bi bima sank moy solution bi manam li ngay li ngay li ngay li ngay lu way di da koy nuru lu parce que c'est une mission la une responsabilité yi démb yi dañoo ñëwoon fekk àdduna buy jaxasoo ñu ñëw teg ko ci yoon waaye niñ ko tege woon ci yoon mooy dañoo incarné woon lañ doon woo nit yi yonent bi sallallahu loolu la rawee ñëpp mooy alquran daf koo jàngale ba pare doon ko kon tey jullit tamit su ñuy woo ñeneen ñi mooy fokk ñoom tamit ñu incarné liñ leen di woo parce que tey ci jafe-jafe yi tey sooy xool réewu jullit yi su ñuy wax fi luubal ak njuuj njaaj ëpp soo demee ñoom ñooy raw ca list ya soo jëlee réewu jullit ñi naan réew yi nga xamante ni nii dañoo doy dal xam-xam ñi ëpp jànguñu réewu jullit yi ngay fekk ñoom ñoo jiitu ca list yooyu xoolal lool ni mu dàqontee ak seenum njàngale diine xool leen lislaam àq ak euh, wàccuwaay bi nga xamante ni moom la jox xam-xam ba pare ñoom ñu dellu ginnaaw ci lool tey jii jikko yi nga xamante ni yëpp dañuy wax crise morale bi crise morale lañuy wax te l'islam ñëwul woon lu dul régler jikko yonent bi sallallahu alayhi li mu jëfandikoo yëpp ay moyens la woon rek mais jubluwaay moo doon defar jikko tey àdduna bi problème mu jikko la am kon jullit yi su fekkente ni bëgg nañoo taxawe euh, bëgg nañoo bay tool boobu nga xamante ni ñoom lañ ciy xaar ñu bay ko fokk ñu delluwaat dëppoo li ñuy woon nit ñi ñoom ñu na ko ci tënk jërëjëf mbokkum yi day laaj mu ne ndax jullit ñi bu ñu booloowul ndax dana yomb islaam jàkkaarloog nouvel ordre mondial seen ñàkk a booloo gi ndax du doon jafe-jafe ci ñu jàkkaarloog nouvel ordre mondial waaw ñàkk a booloo moom borom subhanahu wa taala préveniru nañu ne su ngeen booloowut su ngeen juboowut du ngeen du ngeen taxawal lu taxaw te lu leen song daan leen wala taxtalifu fa tafchalu wa tadhaba riixukum moo tax moo tax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee Médine lim njëkk a def mooy créer solidarité boobu mooy créer bennoo bi créer booloo gi parce que فوك ني بولو الاسلام داف نبولو سانت ني بولو انما المؤمنون اخوه جوليت ني يونت بي مثالون كو تي مثال بو رافيت بام كو مثالو مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم بحديث بجيخ موي دانيو ورا ملني بن يارام رك بن يارام تير بو فيبر يينن تير ييب سوليداريتي موي تاي جولي دانيو ورون سوليدير اك فوني مانتي نيك خولال تاي فلسطين xool leen koor gi suñ mbokku Palestine yi liñ nekk di leen def ak toroxal gi ñu toroxal ci biir masjidul aqsa moo ne ka leen di toroxal ay jullit rekk ko wër waaye ay jullit yu teqalikoo waaye ay jullit yu booloowut moo tax seeni noon bool moo tax seeni noon not leen dafa yomb not leen dafa yomb kon booloo suñ ko deful baytool bi dina jafe jërëjëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa